bi mu ñëwee noonu la ko Cheikh Amadou Mountakha def Cheikh Amadou ko ni foo leen demal ci lislaam bi yaa fa doy bisimilah sëñ bi bisimilah. Serigne Cheikh Bara Laat ko ñëpp déglu Serigne Saliou ñu ngi lay dalal ñu ngi naan ne ñëpp toog Serigne bi nee na ne toog. bisimilahi rahmaani maa ngi nuyu mbokk jullit yi fi daje yëpp. te di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii tey eh, sëriñ Bassirou ñoo ngi lay nuyu ci turu Serigne Moustapha waaye ci turu njabootu sëñ Baara yëpp ndax njabootu Serigne Baara yëpp ameel nañ la cant Serigne Moustapha nag bu santee ñun ñëpp noo ngi ci biir kon nuyoo boobu maa ngi ci jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ni lépp lu yëngu ci yoon wi moom lañ ko yëngul. di ko ñaanal bu yàgg lool te wér ndax toogaayam bi ñëpp yéene na ko ko ñëpp yéene na itam mu am ci ndam di nuyu sëriñ Moustapha Abdoul Akram mi nga xam ni moo jiite délégation waa kër maam Cheikh ak waa kër suñu maam Afi nun ñëpp ñoo ci biir te di ko sant bu baax itam ci taxawaay bi ci wetu sëriñ bi waaye nag ci bis yu mel nii itam may nuyu mboolem koo xam ne invité nga bu fi ñëw te dina sant te xamal ni sëriñ Basiiru mii lii mu def Cheikh Mouhamadou Lamine la ko defal la ndax ku ñëpp dégg la wante dafa nekk ku aaja jàngale te toll nañ ci contexte boo xam ne bii mooy contexte bi ñu war a jàngalee mag ñu mel ni Cheikh Mouhamadou Lamine mii ndax umpale wu leen jamono ji yàquwaay gi ñëpp teg na ci seen ba wuññeent awra yi saaga yi wax lu bon li loo xam ne kenn musu koo dégg bañ juddoo ba dëgg ni lu bon rek rajo boo foo ubbi lu bon nga fay dégg kon jot na ñuy jàngale euh, jot na ñu jàngale liggéeyu mag ñu mel ni Cheikh Mouhamadou Lamine mi ndax dafa laaj réew mi jamono yi ñu toll laaj na ñu ñu modéré langage yi ndax wax ju bon joo xam ni kenn musu koo dégg te lu fi waay wax nag di ko waxaat ndax yàlla suñu borom nee na wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan ku ne suñu borom dina wéetal yow ba nga den yow doomu la bind kon mboolem ñuy wax te jàpp ne li ñu waxoon buñ ko waxaat bu ëllëgee dañuy nax seen bopp ndax boo li nga waxoon boo ko bëggee weddi bu ëllëgee sax sa cër bi nga waxoon naan yaa ko wax al yawma naxtimu alaa afwaahihim waxoon boo ko bëggee weddi bi nga moo koy waxaat kon nañu modéré langage yi suñ gone yii wax bon ji nit ñi dëkke kenn ku nekk di xas sa morom nañu xoolaat suñu réew mi téye ko te xam ne ku yàqal bu yàqal bu yàqee ñu la te jikkoy mag ñi mel ni Cheikh Mouhamadou Lamine ni képp ci la ñu mën a roy gone yi ñu yar leen ndax lii ma gis kat bu ci gone yi yaroo màgg ci Sénégal mooy yées ci réew kon ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah jërëjëf Mbacke. dugal a